man nag su ma doon def politik wala may ut di adhéré ci benn parti ci jamono yi ñu toll Pastef lay adhéré ku ne sañ na ko maa wax rek waaye ku ne am na foo féete ku ne am na ku la saf Njaga Mbay Njaga Mbay yàlla na ko yàlla yërëm yaa fi war a wax yaa ñu saf bu mu la tax a wax loo xamul ku ne am na ku la saf ñun ci cadre boobu la ñuy waxee jàmm rek la bëgg ci réew mi nag yàq taxuñoo jóg wax lu ñaaw taxuñoo jóg gaaral nit taxuñoo jóg contre sama ay kilifa taxumaa jóg waaye damay wax ni affaire famille ak affaire gis-gisu àdduna du benn boo waxee ñu ni Tiwaawan waxuñu lii Tiwaawan affaire beneen affaire la kilifaa nga fa mhm. sama ay kilifa rek ka fa nekk yàlla nañ fi yàgg gudd fan yàlla may leen lu bare bare bare ci ay may ak kilifa diine yi fi nekk sëñ Muntaxa noonu mhm. màggalu Touba bi yàlla na fi yàlla def jàmm ñëpp dem ci jàmm dellu si ci jàmm ñun contre ñu ñooñu. déedéet waaye dafa am nag loo xam ni nag suñu responsabilité bopp la nañ ñu ko bàyyee parce que bu ma yàlla di duma ëllëg wala mu may laaj du laaj sëñ Abdou ñu ko kaay. Giar kontaane jox cër mbokku àdduna Giar kontaane jox cër mbokku internaute c'est la bonne TV kon naa mbokkum réew mi ci chaîne chaîne la chaîne de la vérité la chaîne du peuple. Euh, di am mbégte bu baax di jàkkaarloog yéen saa su ne di waxtaan ak yéen ci chronique ci actualité ak li tolluwaay réew mi waaye balaa boobu balaa ñoo sori dañuy wax bàkk bi doolee jën ndox la doolee saxaar raay la mais doolee chaîne YouTube site internet abonnement commentaire aimer et partager xam naa ni yéen a ngi ci waaye gën leen cee nekk may nuyu Bouna Sarr l'international borom je réclame un million d'abonnés pour C'est le bon TV de Kona le véridique kon Bouna Sarr international maa ngi lay béggee ah di wax ne ku yor ñaari junni yo maye mayal kula neex waye so bëggee dégg dégg jappal c'est le bon tv di nuyu fans club c'est le bon tv yépp di am mbékté bu baax di jàkkaarloo yeen di nuyu suñu partenaire yi ah ku melni cheikh ahmadou bamba mboup ah borom ah, association fils formation et de réinsertion des lutteurs du sénégal ah borom ah, institut de formation pour des métiers de l'économie euh, vraiment nek fele unité 22 euh, numéro téléphone am yaangi non di suñu partenaire bu yag ñu koy bëggé bu baax di bëggé ñëpp gaay nak tay waxtaan wi euh, lii moo nekk la ñu bëgg a waxtaanee mooy euh, tolluwaay réew mi comme d'habitude mais kàddu yi sëriñ euh, Habib Sy Dabakh yi mu yëkkati teg ko ci nga xamante ni mooy ci penc mi comme ni ma leen ko wanee ci suñu commencement waxtaan ma bëgg ñu waxtaan sens de la responsabilité Euh, sens de la responsabilité kenn ku nekk ci famille ba nga bokk ci pénc ma nga bokk ci réew ma nga bokk am nga responsabilité boo ci war a doxal que ça soit ngay chef religieux que ça soit ngay citoyen simple que ça soit ngay ngay étudiant que ça soit ngay technocrate que ça soit ngay intellectuel que ça soit ngay journaliste que ça soit ngay président de la république que ça soit loo mënti doon am nga ben responsabilité bo am vis-à-vis à ton peuple vis-à-vis ak génération bi nga bokk soit que dang kay réussir wala nga faillir ko té ñun paré parewuñ pour faillir suñu responsabilité moy li kilifa gi def tay seigne Abdou seigne Habib Sy Dabakh joxaat ñu dëgg ci ñun kàddu yañ daan yëkëti di interpeller kilifa yi ne dañoo wara wax ma ñamal leen ci tuuti xam ne ñun lépp lu ñuy wax rek dañ ko tek ci dëgg tek ko ci histoire teg ko ci histoire réew mi teg ko ci xam-xam teg ko ci yar ak ci teggin donte nag responsabilité dafa metti mais kenn ku nekk am nga responsabilité ñu dem déglu Kona mbokkum réew mi li mu ci waxoon jamono yi ci ginnaaw ci naka la ñuy fexee ba kilifa yi jël seen responsabilité ci tolluwaay réew mi ñu dellu soit ci plateau bi. looloo tax man ni la kilifa yi dañoo war a wax soo gisee nañu la kilifa yi dañoo war a que nee naa nit ki lu mu yaakaar maanaam bu jaaxlee fi mu yaakaar wàllu rek fa lay jëmale gémmiñam mm-hmm.

boroom xam-xam ci buntu kër buur mu ngi mel ni weñ bu tag ci kaw ay neefere Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul musul bëgg bëgg jaxasoo ak nguur nee na moom chaque jour ci côté askanam lay nekk mais ñun nag looloo tax ñuy réclamer ñii fi nekk Macky Sall maanaam dafa judd fekk fi Sénégal kon ñun waruñoo nangu Macky Sall di yàq Sénégal par rapport ak désiram bu mu bëgg a désir des ci pouvoir moo waral ngay gis ay procureur ñuy génne di wax lu dul dëgg maanaam tey ay déclaration procureur xoolal nguuru Macky Sall ba mu amee ba léegi ay procureur léegi ngay gis ñuy wax ay njiitu magistrat yi waa UMS génn di wax te ñooñu nit lañ woon ay bip ay bip génn di def intervention ay GIGN ay DUC maanaam maanaam institution yi yëpp dañ ko désacraliser ngir lan ngir bëgg a gën a tiital sa askan nee naa la Macky Sall dafa ñu bëgg ragal noo maanaam dafa ñu bëgg a napp ragal leen ma wallaahi duñ ko ragal maam Bousso billaay ragaluñ Macky Sall yàlla lañ xas a ragal ragal ñu Macky Sall ba bari ragal ñu bépp natt bu ñu bëgg a teg parce que déjà ñu dañoo souffrir nii dañuy souffrir nii nii nii en silence parce que ñu ngi gis gis ay besoin yoo xam ne suñu wayjur ñu ko bëgg mënuñ leen ko joxal am na ñoo xam ne moment bi ma lay wax ñu ngi dëkk ci ndox boo demee ñàgg am na ñoo xam ne ñu ci ndox ba lañ dëkk di xaar nawet waat ñu gën a dëkkaat ci ndox mi des sénégalais sénégalais meurt dans les couloirs des hôpitaux kon tey Macky Sall mënuñu nappee leneen lu lu ñuy dund metti na ba pare kaso dong la ñu mën a nappee wala mu ray ñu te bu ñu rayee aajana lañ jëm parce que yàlla lañ gëm bu ñu reyee àjjana xam nga man su ma gisee kuy tiit wala kuy ragal wala kuy jaaxle ci nguur gi damay jaaxal. Hmm. man Macky Sall bu ma reyoon daf may noppal. déet waay barki Serigne Touba Xaadimu Rasuul non dama lay wax non dañuy reyaate kay ñoom ñoo ko wax di. non bàyyi wax yi dee. mais ñoom dañuy raadu non dee la dé moom mais bu fekkee ne yàlla bu ma gëm maanaam dama am la bëgg so gisee man la bu ñuy rey dañu rey dama xam man tok xola tok tok sama tok sa bu ma war a dund Macky Sall mu ci changé virgule mo bépp force bu mëna am na léegi lool lu koy woné moy taqwa moy gëm yalla xana xam maam Bousso so bo xasse baragal yalla do ragal lu yalla bind yéen ko gis ñun taxawaay bi lañu mësa am tay sunu papa sunu baay eh, sëñ Habib si Dabaax dafa ñëw jox ñu dëgg joxat ñu dëgg en même chaque jour parce que dem na wax la responsabilité té ñun responsabilité dong moo tax ñuy interpeller ñi ci amul responsabilité wala ñi japp ni li xew ci réew mi amuñ ci responsabilité musuñ ci am responsabilité dans l'histoire ñi ñu doon aussi musuñ ci am responsabilité dans l'histoire interpeller wuñ leen mais bu dara xewé ci penc mi dañ dan gis ay kilifa génn def une intervention donte sax bala dara di xew sax dañ dan jug di def ay intervention di wax di jëf ci askan wi loo xamante ni tey jii moom mooy apaisement ak dal ñu ci daan gis ay résultat yu extraordinaire exemple rek ci sunu maam Abdoul si da Dabakh kon tey suñu demee ba tollu fenn fi gisatuñu loolu ñun war nañoo interpeller war nañoo jaaxle war nañoo laaj lan moo waral lii léegi nag Sénégal demoon na ba questionnement ci côté boobu dañ koy tere te ñun nag on est des gens yi nga xam ne on est tellement libre on est né libre dañoo juddu libre te incha allah dañuy génn àdduna ci liberté boobu fépp fu ñu bëgg xañee suñu liberté de d'expression wala suñu liberté de faire dinañ ko dem uti ci feneen parce que yi àdduna yàlla moo ko moom kon gars yi li ñuy wax nekkul xas li ñuy wax nekkul wax ju ñaaw li ñuy wax nekkul dañoo yabaate mais dañuy wax dëgg te loolu la suñu papa maam Habib si ñëw indiwaat dem na ba li ma wax man responsabilité dem na ba ne mbir mi du mbirum famille mbir mi du mbirum fi wala fa mbirum sama responsabilité la ndax bu ëllee yalla dina ko laaj yalla dina ko laaj comme ñun ñëpp dañoo am responsabilité ci jëf di wax ci jamono bu nekk li xew ci penc mi surtout nak ki nga xamné dafa jité mbolo surtout nak ki nga ni ay nit ñoo top ci ginnaawam wax nako né nañ ku ñetti nit di top am nga responsabilité am nga problème kon ñun li lañu mëss di woté mais xoolal man wax naa ko samay biir wax ma ne leen li tax ñu leen di woo suñu leen déggee dañuy soulagé wu kan moo wul démb ak tey nitu dëgg bu soulagé wul ci dégg suñu ma suñu papa Serigne Habib Sy Dabakh kàddoom yi kan moo ci soulagé wul kan moo ci sentirul fierté ñëpp képp kuy nitu dëgg Sénégal ba nga déggee sunu maam Abdou Habib Sy Dabakh di wax sa xel dem na ci suñu baay suñu maam maam Abdoul Aziz Sy Dabakh sa xel sentir na fierté yëgaat nga sa bopp nawloo war nga euh, gëm gi nga gëm ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi te loolu rek lañuy bëgg a sentir am na naafeq yu ma dégg nag ñu naan euh, dégg la euh, maam Abdou Aziz Dabakh régulateur social la woon waaye moom farul woon léegi ñu ngi bëgg a def allusion que suñu maam Habib Sy Dabakh suñu papa dafa far léegi moom yan kàddu la yëkkati yuy wane ni moom dafa far suñu maay heureusement sax suñu maam Abdou Aziz Sy Dabakh Dan la wax ni far day mënta ñak ku ne amna fu mu far waye ñu maytu par parlo mam abdul aziz dabaax li la daan wax comme neexu ta waxe so waxe deug ñu ne da nga far ñun ñi ñu japp ni dañu faral ousmane sonko te wallahi fara ko ni lañ taxé won à 2011 di défendre Macky Sall donte nak suñu cadeau exi wul won comme suñu cadeau ñu exé ni tay di xex injustice bi amone Senegal, di dem place de la nation donte lu ñu nekk nekk ay xalé dëgg lañu faral ak Sénégal billaahi wallahi watallaahi faruñoo kenn wala bu ñu faree it par parloowuñu fu dëgg nekk danañ ko wax par parloo nag mooy ànd naa ak Kona Kona lu mu def baax na lu mu def bu baaxee yàlla du gërëmee baax na bu yàlla gërëmul baax na parce que damaa far ak moom loolu mooy par parloo waaye far nag mënta ñàkk mooy ku ne moom la Baye Abdou moom la maam Habib Sy Dabakh ku ne am na fu mu far waaw ku ne am na fu far ba ba misaal ko ci wayu Njaga Mbay waaye nag par parloo moo mën a ñàkk par parloo mooy intérêt général intérêt réew mi bu taxawee nga jëndee ko sa intérêt personnel wala sa nit sa nit bu loree askan bi rey askan bi yow soo nekk si intérêt yi ngay am si moom moo la amal njariñ loolu mooy par parloo yàlla nañ ci yàlla musal mais say ñaari soxla sax soo ko amee dina am fa sa xol gën a jéng waaye nag yàlla nee na nga yemale leen kon ñun xam nañ bu baax li ñuy def kon maam Habib Sy suñu baay Habib Sy da limu wax moy la réalité des faits sénégal nak so waxé ay faits ñu né da nga far sénégal mom ku fi wax deug ku fi wax faits ñu né da nga faral ousmane sonko tam ndax mo nek ci deug limu wax yépp sosu ci dara mom lañ ko tek ñepp ci tek seen bëtt gis na nit ñu sacc alalu askan wi ay milliards askan bi tay ñom ñoy top ousmane sonko diko saga ci télé yi ay nit taxaw nañ ne ousmane sonko dañ ko wara ray mais limu wax c'est des faits sénégal nak wax deug yalla ousmane sonko mo nek ci deug nak képp ku wax deug ñu né mom nga faral képp ku ne réew mi ni muy doxee baaxul ñu ne Ousmane Sonko nga faral képp ku ne réew mi eh, amul justice ñu ne Ousmane Sonko nga faral képp ku ne réew amul dëgg ñu ne Ousmane Sonko nga faral képp ku ne xale yaa ngi dee ci géej gi ñu ne Ousmane Sonko nga faral képp ku ne xale yaa ngi dee ndax amuñu lu ñu ñu ne Ousmane Sonko nga faral parce que li ma li ñaaw ci réew mi bon ci réew mi moo bari kon képp ku wax dëgg Sénégal ñu ne Ousmane Sonko nga faral waaye sunu papa Habib Sy Dabakh ku déggu ay kàddoom xam ne kii sori naag ay farfarloo dafa wax dëgg ta yàlla tax léegi nag ma ñëw ci li mu ne pastef su doon man damay bokk ci parti politique tey ci pastef lay bokk bu dee loolu ngeen tudd ngeen jàpp ni far la déedéet dafa wax dëgg ndax pastef bépp kuréelu dëgg bu musaan taxaw li ñu def pastef def nañ la commencé ko ci bi sallallahu alayhi wa kuy borom xel xam nga ni pastef budé manam budé deug pasif rek Pastef ñoo ne ci deug parce que bép kuréelu deug la la wax ci walu spirituel ci walu temporel demal Afrique du Sud ci Nelson Mandela sen parti bi désourdur nañ ko japp Nelson Mandela tej toroxal ay nitam tay ji dem na ba ku bëgg gagner élection Afrique du Sud Nelson Mandela ngay andal, yonent bi sallalahu alayhi xayrul khalq dañ ko réunion te ku ne xam nañ ko Ousmane Sonko dañ ko réunion waxtane ko dialogue bi rek barki demba ci mujj ay kuréeli kuréeli kuréeli kuréel ñoo def dialogue def def ñoo dialogue waxtaan seeni wax ne pour isoler quelqu'un te yonent bi defoon nañ ko loolu te bu nga xoolee ba ñu génnee ci dialogue bi ba tey gëmmal dóor bi xoolal dóor bi mu ngi def effet kon sëñ Habib Sy baax su waxee fa mu waxee ñun ñun borom dëgg nitu dëgg yi dégg nañ ko mooy que dafay solidariser wu avec Pastef parce que dañ leen teg injustice mosoo leen gis nitu yàlla buy ànd ak nguur bàyyi askanam wala buy ànd ak les forts bàyyi les faibles maam Habib Sy Dabakh dafa wane ni nitu yàlla la parce que musuma gis man nitu yàlla buy ànd ak les forts bàyyi lee faibles di ànd ak les oppresseurs bàyyi la population buy ànd ak nguur bàyyi askanam musuma koo gis man man nitu yàlla buy ànd ak nguur bàyyi askanam musuma parce que askan du fen askan du juum te askanu Sénégal sonn nañ ku ko wax ak ku ko waxul askanu Sénégal sonn nañ nous souffrons ñu ngi dund dund ko metti ci lek ci nan ci way waye legi ci persécution amato droit wax sa opinion kon askan woowu askan wu lotu la kep kuy nitu yalla ci ginnaw askan woowu nga ne wara nek gem len ci genné te mam abib sidda da lol la nek di def kon fa sore nak par parlo il n'a qu'à fo wax la vérité la réalité te sénégal ku wax deug ñu ne ousmane sonko nga andal ndax Macky Sall kenn xamul lan nga koy taggé fi toll lan lañuy taggé Macky Sall ku bëgg tag Macky Sall foo koy jaar loo koy taggee def na fi teer sunu xaalis te lim ñu facturé ak ak ak ak li teer di jar moo ëpp loolu def na fi BRT BRT baa ngi ne di daw di wenk ci sunu xaalis te li mu yàq moo ëpp li mu defar lan ngay taggee Macky Macky Sall des infrastructures des biens biens biens matériels ah léegi bilan immatériel bi nag où est la justice où est la démocratie bi ñu xeexoon.

président lu mu cuune cuune war naa mën a am bilan matériel jël ay milliards leb ko ci FMI banque mondiale dugg génn jël alalu Sénégal def ko ci ay ay suuf ak béton ñu nar ko fay fii ak loolu président lu mu nul nul war na ko mën arrêtez d'insulter l'intelligence des Sénégalais Macky Sall en 2012 bi muy falu dafa ne woon je vais restaurer l'état de droit fal la toll ci loolu ñemeetu ci wax tey moo naan maa jël sama conc teg ko ci ay dossier tey moo naan ku ànd ak man doo dugg kaso ay nitam di taxaw di saaga ay procureur di di ay ay ay ay ay ay ay cour des comptes di ay de ay parti lañu parti. Macky Sall la toll tey ay milliards de faux billets ñu naan dafa ak ñu premier ministre. fan la nu Macky Sall indi tey ay nitam yoo xamante ni dañoo sàcc dañoo des ñu jàpp de la main dans le sac l'argent du Covid mu ngi été barki Dembo waxuma sax ay 94 milliards argent contribuable nous avons la main dans le sac ba tay ji ñu ngi di traîner di di dox seen soxla jamono des honnêtes gens parce que ont posté des des des des Facebook ñu appelons ci bi des fois la fleur ay xalé ndaw di exiler ay doomu fan lañ ci lolu kuy tag Macky Sall koy lan nga koy taggé doolé askan wi la yor di leen ci duma dong Bongo exemple Macky Sall ay député Macky Sall ñoo fi jël di fi falsifier passeport diplomatique di takkante ay sëyu góor jigéen tey ils sont libres comme l'air kuy tagg Macky Sall loo koy taggee Sitor Ndour ñu ne dafa viol xale bu am 16 ans pour juge ne bàyyi naa ko parce que bénéfice du doute jiiñ Ousmane Sonko corruption de la jeunesse te kee tous les preuves sont réunies luy wane dafa violé doomu jàmbur il est libre comme l'air ana Bougazali kuy tagg Macky Sall loo koy taggee kan kan kuy tagg Macky Sall loo koy taggee Macky Sall 2012 ba léegi amul benn nitam bu nekk ci kaso bi parce que gestion wam lañ leen jàppee maanaam amul benn nitam bu buñ jàpp tëj ci kaso bi wala ñu juge ko wala ñu entendre ko ci alalu réew mi mu luubal te pourtant y a des euh, cours des comptes ak yenn rapport yu génn multiple rapports génn ci ay ministre Macky Sall ak ay DG Macky Sall amul kenn kuñ ci mës a épinglé wala ñu kuñ ci mës a entendre wala ñu tëj la kaso wala ñu wala wala ñu wala sax intimider la.

kenn ku ci nek nak da ngay jël say responsabilité nga wax wala bu ëllëgé sa borom dina la laaj bi mbir mi xewé bi nit ki di lor askan wi yow ana fa nga newon ak kaddu ma ma la joxoon lan nga ko jëfee won loolu ñun ñëpp dinañ ñu ko laaj kon na gaay waxtaan wi tay li la euh ku am ñaari jun yo may comme d'habitude ak mayal kula neex mais so bëggé dëgg-dëgg jappal sé le bon tv ñu vex sa kenn mais dëgg yalla moko mom té inshallah insha rabbi day jippa ba faw suñ ko waxulit keneen dina ko wax Pour les fêtes de partager d'aimer. aimer alaikum. yes we can.